waaw conclusion yi kay moom teg nañ ko noonu parce que man commission boobu moom nekkoon Bamba Kassé nekk rapporteur man ci laa bokkoon man ñun ñoo yoroon organisation et fonctionnement de la justice donc am na liggéey bu mucc ay buñ ci def euh, li ñu jàpp mooy que tamit euh, euh, bi ñuy waxtaanee ci suñu commission mooy que li li moo ñu gën a war ci ci ci justice Sénégal mooy defaraat xar kanamam ba Sénégal yi wóolu ko ba Sénégal yi ñeme ko. parce que boo gisee sénégali yi duñ ko wóolu mooy que xëy na ni muy doxee la jàpp nañ ne dafa brutal jàpp nañ ne aussi dafa nekk justice boo xamante ne dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey lépp luy renvoyer ci loolu nag loolu dañu jàpp ne dafa war a deñ ci justice boobu ndax Sénégalais yi wóolu ko ndax Sénégalais yi alors donc mën ko ñemee bon mën di fa dem donc comme ni mu wale aussi bu dis décision amee nit ñi mën ko nangu donc nangu bi nga xamante ne ni parce que dañu jàpp ne lii mooy yoon. donc loolu moom loolu moom da ci ñëw lool sax. non ñun waxuñ pouvoir du président de la république moom parce que liñ liñ wax mooy que ci magistrature lañ nekk ak justice léegi nag c'est vrai que wax nañ ci conseil supérieur de la magistrature donc conseil supérieur de la magistrature débat bi ñii naan na fa jógee nii ne du fa jógee mais li nga xam ne moom moom moo am solo te nga xam ne wax nañ ci mooy que un. pour yenn poste yi ci magistrature nañ ko def appel à candidature loolu nit ñi nañ ci gestion carrière nañ ko bàyyi ci loxo magistrat yi loolu tamit am na ci léegi nag bu nekkee président de la république rencontre conseil supérieur de la magistrature pour homologuer des nominations yi nga xamante ni réglé nañ ko d'une manière transparente pour man du am jafe-jafe donc loolu moom moo ëpp solo mooy que gestion carrière magistrat yi nañ ko def li ñu daal mooy euh, ci commission bi nga xamante ni ñun ca lañ ko tënkee tënk bu vraiment nag tënk. mooy euh, dooley procureur de la République dañ ko war a xoolaat parce que dafa bëri doole loolu la nit ñi jàpp. jàpp nañ tamit ne juge d'instruction bi nga xamante ni souvent bu ko procureur joxañee baaraam amul sañ-sañu leneen lu dul def di ko procureur sant dañ ko war a gën a dooleel. wax nañ ni dañu war a instituer lu ñuy wax un juge des libertés maanaam juge boo xamante ne moom mooy àtte ndax kii euh, dafay demali këram. ba keroog ñu koy àtte wala dañ koy denc ci kaso bi ba keroog ñu koy àtte xam nga différence boobu ñu bëri lu ñu woowee les longues détentions dégg ngeen ko mooy nit koo xamante ne dañ koy tuumaal benn affaire tëj ko lu tolloo fukki at doo ko àtte parce que diggante boobu ñu koy tëj amul benn sañ-sañ lu dul xëy na juge d'instruction di ko convoqué de temps en temps moo tax ñoom ñoom bi ñu waxtaanee ñu ne nañu teg benn juge des libertés xamante ne moom dossier bu mënti ñëw bu ñu gannaaw bu ñu jàppee ne lii lañ lay toppee moom dina am sañ-sañu ne ah d'accord lii lañ lay toppee léegi dangay dem nëggandiku kaso wala da ngay dem sa kër. te it même boo demee kaso di nga dem ba benn instant boo soxlawee génn mu mën laa génne wala yu demee noonu donc loolu mooy ñett yu mag yi yeneen ñaar poñ ñi nga xam ne mën nañ ko jàpp mooy ci wàllum politique. Euh, gars yi ñëpp am nañ consensus ci ne dañu war a teg benn cour constitutionnelle boo xamante ne day tribunal di juger la matière constitutionnelle. donc lu ñu woowee ay je ne suis pas compétent yooyu dootul am parce que en droit tu es obligé de le magistrat est de juger bu fekkee ne cour la e beneen bi mooy conseil de la magistrature foofu tamit am na ay am na ci war nañ yokk dooleem war nañ ko gën a autonomiser war nañ ko jox euh, liberté administrative et cetera et mais am na euh, wuute ci ndax président de la république dafa war a toog ba léegi ñi ko bëgg. y compris les magistrats nee nañ dafa war a toog euh, am nañ seen argument ñi ko d'accordul tamit am nañ seen argument mais waxtaan nañ également si est-ce que conseil boobu dañ koy ubbi nga xam ne yeneen nit wala yeneen i kuréel dañ ciy bokk lu weesu ay magistrats kese foofu tamit amul amul déggoo. déjà lu jëm ci conseil constitutionnel bu fekkee ne dogal nañu parce que loolu la ñu proposé ñu def ko cour constitutionnel tur bi soppeeku rek nekk na lu baax. parce que ñëpp gis nañ ne conseil constitutionnel bari woon na coow bari na ñu ko gëmul bari woon na ba ñu koy ju am na ñu si doon jëñ sax corruption même si ci jeexantal bi def na liggéey bu am solo mais def ko cour constitutionnel change tur bi rek lu am solo la parce que conseil c'était déjà chargé beneen bi mooy ñu fay nekk ni leen di tànnee soppeeku ensuite ñu jox leen ay prérogatives maanaam doole joo xamante ne dootuñu bu ñu leen waxee rek ñu ne nu sommes incompétents gis na lu bari bu ñu leen saisiree ñu ne ils sont incompétents loolu rek déjà mun naa ne évolution la leneen li stop mooy lu jëm ci conseil supérieur de la magistrature euh, fexe mu nekk un organe délibérant mooy organe bi jël dogal euh, loolu lu am solo la parce que euh, jusqu'ici le ministre de la justice rek mooy proposé après premier président dogal maintenant même bu fekkee dañ leen di consulter maintenant le fait que léegi ñu nekk un organe délibérant doon na nekk lu baax le fait ñu changé également euh, nu ñuy nu ñu leen di composé mu am ay membre élus ak ay membres de droit ñu tolloo ju fay nekk loolu tam lu am solo la jàpp naa ne yooyu tam ci yokkute yi la bokk. beneen bi mooy le fait que ñu am un juge liberté loolu itam bokk na ci consensus yi un juge liberté dina tax du ti rek procureur mooy xool lu ko neex mu def. dina am koo xamante ne au moins dina permettre moom équilibre entre pouvoir procureur ak pouvoir juge des libertés ba nga xam ne du ku jug rek bu ko procureur neexee yóbbu ko kaso. loolu nekk na ci avancé yi nga xam ne mën naa ko jàpp bien entendu yooyu du yooyu rek parce que pour le moment am na yeneen aussi yoo xam ne mu ngi ci mais yi nga xam ne moo daan gën a euh, euh, intéressé sénégalais yi ci wàllum te naan am njeexital ci élection yi bokk na ci yooyu.